xam naa noonu la ñuy def sax dañuy dañuy sàmm seen kàddu ba pare maintenir tension bi fii ba fii ba gàmmu gi weesu ah, nañu focus sur euh, sur ce gàmmu là dañ ko prépa continuer préparation bi avec le gouverneur nga xam ne maa ngi koy ñaan vraiment moom tamit ci wàllu boppam mu suivre au quotidien décision bi ñu arrêté fii tey devant tout le monde de la même façon le directeur général administration territoriale euh, dina ko suivre dina ko suivre di ko càmbar au jour le jour euh, yi nga xam ne Dakar la ko war ñoo koy ñoo koy réglé il veillera à ce que ñu kon di ko réglé yi nga xam ne au niveau territorial lañ koy régle dina ko suivre boo amee difficulté vraiment mu mu yeggee ñu ko lii gën a am solo daal daanaka c'était des questions d'assainissement euh, ndox bu bon bi ak ndox bu baax bi c'est c'est toujours la toujours la la même balance ah y a des y euh, yoo xam ne que ce soit o euh, ONAS ak sapeur pompier jël nañu ko jël nañu ay engagement donc vraiment lépp luñ ci mën danañ ko dana danañ ci taxaw donc euh, président maa ngi lay gërëm bu baax a baax di féliciter comité d'organisation bi façon bi ngeen liggéeye avec euh, les autorités euh, territoriales liggéey bu am vraiment beaucoup de collaboration loolu la ñu bëgg ñuy waxtaan bu ñu waxtaanee danay danay juboo day yomb fi day ku nekk dana xam li mu li li yitte keneen ki maa leen di gërëm di leen sant Cheikh May jo xanaa ñu yóbbantewaat leen ci xalif bi eh, ngeen nuyu ñu ko bu baax ngeen ziaral ñu ko ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot gi may ko kattan eh, moom tamit mu continuer di di nu ñaanal ñaanal président ñaanal gouvernement bi ñaanal Sénégal yëpp. dalal bi ñu dalal ak dalal. comité bi déglu soxla yëpp daanaka yëpp am na réponse ñi ko war a taxawee tim ku nekk euh, jël na engagement pour def lu mu war a def ngir gàmmu gi mu xewen nga xam ne dëgg dëgg ñëpp ñoo ko moom gàmmu ko ndax juddu yonte yàlla muhammad sallallahu wa sallam nga xam ne ku gëm yàlla rek xam nga ne moom dafa ñëw pour yërmande te yàllaa ko wax ne ko yoon yu ma la lu may nga nekk yërmande pour ñëwal mbindeef yépp ëpp na jullit ñi mbindeef yi ëpp na nit ñi Sénégal dëgg-dëgg gàmmu jig nañu ñun ndax mag ñi seen yaraate ci lislaam yar biñ yar njaboot gi ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi man koo xam te duñ dem sax école loolu yëpp gàmmu moo doon jaaruwaay bi koo gis rek xam na lu baax bëgg ko xam na lu bon di ko moytu bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku ko bëgg bëgg nga yonent yëpp ku ko bëgg bëgg nga mindeef yëpp loolu defe naa citoyen bu mel noonu bépp xew-xew boo xam ne daf lay préparer préparation bu mel noonu nguur gu nekk rek soxla nga bés bu mel noonu senegal kenn du leen jàngal gàmmu lan lay jëriñ yow mi kenn du la ko jàngal ndax gis nañ taxawaay bi nga taxaw moo tax ñu ngi lay gërëm di la jottali nuyooy sëriñ bi bu la nuyoo bu la gërëmee mooy ne nuyu na le président ba Bachir Diomaye Faye mooy nuyu na premier ministre Ousmane Sonko nuyu mbooleem membre de gouvernement bi di ñaan yàlla yàlla defal leen tawfiq ndax moom gis-gisam ëpp na rek Sénégal baax koo xam ne fuñ la o ci àddina bi pour lu baax nga uyu kon sa réew mi nga xam ne nag bala ngaa baaxal feneen moo jiitu kooku waxi noppi moo tax mu ngi taxaw ci côté Sénégal yépp ci lépp loo xam ne bëgg nañ ko tam mën a jëmee réew mu ci kanam dafa am mag mu baax ko waxoon ci bàyyam Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ne lu la naqadi ci moom rek mbaax goo xamagut la waaye ñun tim ñi ngi leen di wax ne sëriñ bi lu ngeen déggut ci moom rek mbaax gu ngeen xamagut la waaye ñu doxee jëm ci kanam da ngeen ko xam ndax lu baax ngeen bëggu pour réew mi yaakaar yi rëy na bu yaakaar yi def ñi am ko ci yéen xam ne li Sénégalais yi yaakaar ci yéen yàlla dana ko dëggal waaye yéen li ngeen yaakaar ci Sénégalais yi yàlla dëggal ko ndax mbir moo xam ne benn nit moo koy defar loxo yëpp ñooy jàpp pour mu baax tey nag yow lañ toog ak yow ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla jàppale la ci sa liggéey yàlla may la ndam liggéey bu jafe la waaye yàlla lu mu yombal mu yomb yàlla damay leen bëgg a liggéey mën a liggéey am tawfiqi liggéey yal na yàlla gëm nañ ne bëgg ngeen ne liggéey gëm nañ ne man ngeen ko li ci des ci loxo yàlla nekk ñu ngi ñaan yàlla yàlla may leen tew tawfiq ba ngeen mën a dëggal yaakaar yi nga xam ne moom la askan wi am te bési gàmmu ak liggéey gàmmu loolu yëpp ay yoon la pour ñu mën a àgg ci li nga xam ne moom lañ bëgg ci réew mi ndax du dara lu may ay bés yoo xam ne dañuy daje di yokk suñu jokkalante ñun ci suñ biir dañuy daje di recevoir ay gan yoo xam ne fu sori la ñuy jógee yàlla rek yëkkati leen kenn koo gis ci ñooñu rek ñaanam mun naa sauver mën naa sauver réew ñooñu nag ñëpp buñ booloo booloo fekk si jaamu yàlla yu baax yi nga xam ne ñoom lay fekk si ñi yokk suñuy jàng alxuraan di yokk suñuy ñaan di yokk suñuy dundalante di yokk suñ gëm yàlla loolu dëgg-dëgg lu am yaakaar la wa sallam dafa wax ne mooy lexele ñam jàmm gan ñi ñëw ci jàmm ñi dajee ci jàmm bàyyitim jàmm ci Sénégal mais bu ñu dellu ci seen réew itam ñu yóbbaale jàmm ndax loolu rek moo tax ñi baaxoo di ñëw te ku ñëwoon rek bëgg ñëw ku ñëwoon rek bëgg a indiwaale keneen ku yombal loolu war nañ laa ñaanal ñu ngi ñaanal suñu gouverneur di ko dalal gan du gan sax ndax moom xam na kaw la xaw kaw xam ko moom it yàlla defal ko tawfeex di ñaanal gouverneur bi fi jógee Ousmane Kane moom it xam nañ ne liggéey bi comité bi doon liggéey ci jamonoom la taxaw ci taxawaay bi mu war a taxaw di ñaan yàlla mu xool jëm ci senegal bëti yërmande ak bëti ngërmande yàlla boole ñu wëttu wëttuñu ci lislaam wëttul ñu mbokk gi wëttul ñu jàmm yi waaye yàlla def jàmm ci mbooleem eh, àddina bi ci mbooleem aalamul islaam rawatina ci Afrique